bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah moolaana muhammadin wa ala alihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu xibaar yi nga xam ne moom moo tukkee ci jihaad bi dox ci diggante yahut yi ak julit yi foofu ci ardu Falastin mbokk yi mu mel ne nag lépp lu nit xeexul te ba tolloog la xew rek ndeysaan mën na caa bañ a mucc kon nag joxe sa bakken ngir am jàmm joo xam ne dana wëy ci sa giiru wax dëgg yàlla jar na lu ne donte ñàkk sa doom ci ñàkk sa soxna donte yéenewuñ leen koon nag bu ñu sañoon nag danañu jot seen suuf te duñu ñàkk seen bakken waaye nag dafay am ngir fu mu toll nag dee wan ko ginnaaw dafay daal di toll bu leen fàtte Algérie gi pour moom moom boppam ñeen fukki junni ak juróomi junni France rey na ko ci ñoom waaye bu leen fàtte aussi tamit ne muy suñu réew mi di Sénégal amul benn fitna bu ñu tegul bu leen fàtte Afrique ñetti téeméeri at yoo xamante ni nekk nañ ko ci njaam ak colonisation moo tax tey te ba léegi taxul ñu moom seeni bopp ndax li ci bëri dañ ko négocier kon nag ñii dañoo jóg pour moom seen bopp ànd ak li ci xew yëpp gis ngeen ko mu mel nag xibaar yi dañ koy njëkkee tey ki xew-xew bu am am solo muy américain bi nga xam ne wax dëgg yàlla mujj na nekk jullit waaye sax nag ba foo xamante ni yaakaar naa ne ay mébét yu kawe la ci moom mu mel ne li ñuy wax ci moom nag lu néew lay doon waaye lu bari lay doon histoire di bind docteur Iyat Sagne bi démb ci trois heures vingt et un minutes nekk li nga xam ne moom mooy le huit avril deux mille vingt quatre daanu na ci xare bi nga xamante ni yéeneem moo nekkoon daanu ci mbaa mu gis drapeau Palestine di yëkkati ko ci kaw ñu am seen indépendance waa ji nga xam ne dafa mujj tuub dugg ci l'islam laataa muy ñëw foofu ci Gaza mais Khalid Chamoussi la tudd Khalid Chamoussi mooy bi mu duggee ci mu nekk docteur boo xam mu ngi jógee ca ca Havan ca ca Zaman foofu ci Amérique la mu nekk benn centre médical bu mag a mag a mag ci dëkkam boobu professeur nekk adjoint conseiller bu mag a mag euh, nekk ci ay benn naataangoom moo bind lettre bi nga xam ne dëgg-dëgg mu nekk koo xamante ni ku am am solo la waaye nag avant muy faatu am na lettre bu ñu bindal lettre boobu moom moo jara a jàng waaye moom ñu wax tuuti ci dundam mu ngi jàngee ci médecine ci Los Angeles ci Amérique mooy fa la juddoo sax ndeysaan muy capitalu raman muy ci seen euh, dëkk yooyu ci États-Unis d'Amérique waaye dem na fi Ottawa Manito Manitoba ci fële ca Canada aussi tamit yokk fa njàngam ci njàngam ba gën a ba adduna bi yëpp ubbeeku ci moom ci wàllu xam-xam loolu lépp mu bàyyi ko jublu fi nga xam ne moom mooy Gaza ca Palestine ngir dimbali ay mbokki jullitam di opérer képp koo xam ne war nañ ko opérer di def lépp lu mu man waaye yematul foofu sax mu dugg fi nga xam ne mooy Rafah fa mu gën a tàngee fa xare ba gën a taree fa xare ba gën a taree waaye moom ànd ak loolu moom mu ne mook ay mbokkam bu ñu dundee mu dund bu ñu deewee mu dee mbokk moom nga xamante ni tey jii dem na ba béréb yi nga xamante ni moo gën a tar la nekkoon waaye daan wax naan al mahya mahyaahum wal mamaatu mamaatuhum mu ne dund ak waa Gaza mooy dund dee ak ñoom moom mooy dee docteur Khalid mii de génn na àddina démb daal di shahid ànd ak jullit ñi ñu ñaan yàlla mu jéggal ko lu may njëkk fës ci xibaar yi mu mel ni nag lu gàtt loolu ndeysaan mu def fës na sax na ci histoire loo xam ne doot ci daj ba ilaa yawmiti docteur Khalid daf ñuy fàttali benn xadis boo xam ne imam muslim moo ko solo yonent bi alayhi salaam di ko waa al ne leen inni abdullahi wa rasulu haajatu ila allahi wa ilaykum wala maxyaa maxyaakum wal mamaat mamaatukum ndaw yàlla bu yàlla yónni ma gàddaay ñëw ci yéen waa al ansaar ñi dëkk waaye nekk na dund ci yéen la mën a nekk dund waaye dee rek ci yéen la mën a nekkee dee kon mbokk mi di docteur Abdullahi docteur Xaalid bi nga xamante ni dugg na ci diine ak diplôme yu kawe yi mu am ak réew yi mu jànge mu jaral ko mu dem nekk ak ay doomi Palestine di xeex ak di xeexam yépp mooy di leen opéré di leen faj di leen dimbali ba démb mu ñàkk bakkanam ci xeex bi yàlla na yàlla jéggal ko yàlla na yàlla yéen ko deena nekk shahid ma ne jëf ju toll nii jaloore ju toll nii histoire dina ko saxal ndax xeex bi ci la àdduna di déterminé wu ak xeex bi dafa am lu bàyyi mbaara di wax lu jar a xel xeex bi jeexagul xeex bi mbokk mi moom la ñuy tuddee almasiriya xam ngeen mbokk yi dafa am la ñuy tuddee fiqhul intilaq fiqhul intilaq moom moo mën a si tey bu ma ko mënoon a wax mooy li ñuy tuddee le développement personnel tanmiyatu zaatiya doomu aadama ci suñu en tant que jullit pour nga mën a am li nga xamante ni moom mooy euh, nit ku nekk nit ku am personnalité nekk li ñuy tuddee euh, véritable euh, kii personnalité nekk nit ku am solo important personnalité li ñuy wax VIP il faut dafa am yu lay togg yooyu lay togg nag moom la ñuy tuddee fiqhul intilaq yooyu daf ci bokk nga xam la ñuy tuddee masdar masdar masadir mooy yàlla foofu nit ki dimbali ko ba mu xam lan mooy yàlla bokk nga xam lan mooy al muhit li la wër mooy l'environnement mooy adduna bi kawnu bi kawnu bi nga xam daf ci bokk yooyu itam yow sa bopp yow nga xam lan mooy azat mooy sa jëmm ak sa jëmm lañ la représenté mais nag bokk na ci li ëpp solo mooy nga xam al masir mooy suñu ëllëg suñu tolluwaay lan mooy déterminer le destin waaye xam lan mooy almasiriya mooy loolu lan la ñuy léegi des gens comme docteur Khalid ñi dañu xam lan mooy le destin lan mooy li nga xam ne seen ëllëg moom moo la am gis loolu bu ci sa bët tegee yeneen bët leneen di dootu ko gis avec ses diplômes mu am xoolal fi mu jàngee ak fi mu nekk ak li mu mënoon a doon ci àddunaam ak li mu mënoon am ci àddinaam waaye bëtam gisul loolu lu bëtam gis mooy mënul toog en tant que diineem nekk ci diineem ci xolam ak yëg-yëgam mu gis ay doomi jullit ñoo xam ne ña ngay faatu adduna bi dañ seetaan mu yëg ni dundu bu dund boobu du moo tax mu ne maxiyaa maxiyaakum wa maatu ma maatukum dund beneen dund dund dee ci leen tamit ëllëg la donc kon ko may mooy ñetti tolluwaay lu mën a dindi ak lu mën a dindi ak làmmiñam waa mën a métti li waaye ñett yooyu boo ci muccee mën a dindi sa loxo kon ni mu def moom docteur dem joxe xam-xam du loo mën a wax ci ba nit xam du loo mën a métti lu soxol nan leen yaa ngi dund waaye dee nga yaa ngi moom na ci loolu la ko la ko yàlla muccal rahmatullahi alayhi wa adxaluhu fi fussi janaanihi ya rabbi irhamhu wa jimhu shuhada yal na yàlla jégal ko téeram ko moom docteur Khalid mbokk yi ni ngeen ko xamee foofu mooy rafax mooy fi Israël di song te tàmbali na ko ni ki démb ndax songu na ko ci anam boo xamante ni nag dana ca loru lool waaye dina ñëw ci rafax après bu ñu noppee ci vidéo bi waaye démb li njëkk mooy avion bi njëkk dañ ko daaneel foofu ci kaw moom ngeen gis foofu takbir yi di am ñaareelu vidéo bi gis ngeen ma ngay ñaax ay soldaaram moom Israël ngir songu xeex bi nga xamante ni dëgg-dëgg mooy xeex de li ñuy tudde xarbul masiriya guerre bi bi guerre moom al xarbul masiriya lañ koy wax maanaam la guerre de détermination maanaam kii sa mujj lay wane fan nga jëm ndax da ngay mujj nekk benn doomu Amérique boo xam ne da ngay nekk ku réew cokkaas di def la neex wala ngay mujj lem sa gen daal di toog bàyyi waa Palestine daal di taxaw xeex bi moom moo gën a garaaw sax bi war a am Gaza ndax xeex bi dëgg dëgg dëgg nag mooy réellement xeex dinaa ñëw léegi ci lan mooy rafax ak rafax nan la mel pour ngeen xam ne lii ñoom caaxaane wuñ ko pour ngeen xam ne Israël moo nekk ci kaw waaye dinaan woon yan doole ñoom ñoo nekk ci suuf Israël pour ñu songandoo rafax ba ci ay arab yoo xamante ni tey jii taxaw nañ ànd ak ak ñi nga xamante ni moom mooy Israël pour songu ko ndax Rafah nag moom mooy bi nga xam ne bu explosé loolu moom dana métti ci réewu arab yi te nag kon guerre bi guerre de détermination al harbul masiriya la yahut yi ña wane ne ñoom dugg nañ fi nga xamante ni moom mooy fi ñuy wax madinatu Rafah ci Gaza loolu ña ngay vidéo yi waaye mujaahidoon yi tuddee seen awliyatu Nasir Salahuddin mu nekk benn contingent boo xam ne surtout ci benn contingent bu ñu wax liwaawu tawxid ñoom aussi tamit song nañ ñi nga xam moom mooy yahut yi ci tànku dëkk boobu xam ne mooy Rafah ak seeni misil mu mel ni contestant yi ñi ngay gën a bari di xeex armée Israël ma ngay fisal ne reyal nañ ko benn ci contestant bi bokk ci al Yamaama benn kilifa goo xamante ni dafa njeexitalu ci ay jam ci seen reyante ñu doon reyante foofu ci xasam ki tool karem ngeen jàpp ne nag xeex bi dina bari li ñu tuddee kamikaze maanaam dina bari ay palestiniens yuy takk seen bomb di daanu ci biir ay soldaaru israéliens yi ndax fi may waxee ni yow du ne soldaaru israéliens ñoom ñoo tiim Gaza mboolem bateau américain ñu ngi jàkkaarloo ak Gaza am na ñi nga xam ne ay réewu arab la ñoo xam ngi allié te ga te ñu ngi allié wu foofu ci Rafah baal ma te Rafah moom moo gën a tuuti Gaza pratiquement te Rafah dafa am li bu buñ xaajoon suuf si tey ji mën ne ñeen fukki kii bi ñeen bi juróom bi rek ci xaaj bi moom moo dugg biir Palestine te loolu beneen waaj gi beneen wàll bi nga xam ne ne moom moo gën a tax ñëpp di xeex foofu dañ ko ko tuddi ak xotuutal sumara foofu mooy fi nga xam mooy les les dangers a song waaye Israël daf ko bëgg a wet waaye jamono bii may wax yi ci song bi muy song Rafah daf ci ak ay bateau américain daf ci ànd ak ay pays arabes yoo xamante ñoo xam ne ay muslim ñoo xam ne seen bopp pare nañ pour Rafah ñu mën ku mel ni Égypte chaque jour fekk Rafah mu ngi foofu mu gis ne am na ay soldaari Hamas yu làq foofu moom gëm na ne un jour viendra ñoom danañu dugg fayu suñu morsi kon moom ñu éclater Rafah mu set wecc comme Gaza rangé ko dëgg-dëgg loolu mooy mébétu Égypte moo tax fi mu toll nii Rafah ci boppam nekk na tey jii xeex boo xamante ni xaar bulu masriya la xeex bu méttee métti lay doon loolu nañ ko séntu c' est vrai que doomu palestinien yu bëri ñu ngi génn di dem mais na ngeen bàyyi xel ne Israël dina takkoo takkoo takku donte civil yu bëri nañ ci faatu ndax actuellement mu ngi bombardé yenn avions yi yenn yenn yenn hôpital yi waaye wallahi soldat israélien yi dinañ fa comme ay weñ ndax li ma xam mooy yenn contingent palestinien yi fi mu toll dañu bëgg a takk seen bomb di daanu ci biir soldat yi te am nañu mooy ñu ko defee te dinañ ko def amatul dara loo xam ne xeex bi tey te xeex bi na ngeen gën a bàyyi xel li wax naan troisième guerre mondiale c'est dañ ko doon coow waaye léegi ndax lii batu américain yi fa nekk américains yi fa nekk ña fa nekk lenn palestiniens yi du ñu épargne parce que fi mu question de vie ou de mort la fi mu toll nii c'est la détermination parce que rasax googu moom waa Palestine duñ ko mën a libéré noonu te man xam naa ne xeex bi dina métti te na ngeen séntu fan yii di ñëw ngeen dégg ay kamikaze ay explosion bombe di ngeen dégg même lu baree baree bare attentat yoo xam ne sax mën na am biir Caire mën na am am réew yi te ndax xeex bi koy waral as ndëkk su ndaw la waaye ndëkk su la soo xamante ni la la fa lalu ci ay mbell lalu fa ci ay bombardement yaa salaam kenn xamul nu mu toll. vidéo bii mën a andi rek ci suba si léegi léegi léegi léegi moment bii may waxe yow ci lay amee nii daanaka bokkul ci xibaaru yëm bi dama ko for muy fi mu toll ni xeex bu mette métti bu dox ci diggante mu jaaxidoona yi ak nga xamante ni moom mooy armée israélienne ña ngi koy def foofee ci ndey jooru Gaza ci quartier bi ñaan Zaytoun actuellement fi mu toll nii dóorante tuy tuy ji mu ngi nii mu ngi daw du film Rick Hunter ñu ngi reyante fi mu toll nii xeex ngay tar nu mu war a ñu ngi résister di reyante ñi nga xam ne mooy armée israélienne les israéliens yi li ñu njëkkee woon moom moo daan bombardement les israéliens nag mënatul yéeg ci kaw ndax léegi gars yi dañuy wàcce avion kon fi mu toll nii Israël dëggal boppam nag moo fi nekk guerre bi mbokk yi du guerre bu ndaw jàpp na bi toog di ay nett laki film lii du métti la donc jullit ñi nga xam ne mënuñu xeexi seen ñaan seen i julli seen la salawaatul xamsu moment boo leen toog di leen seen loxo di ñaan parce que ñaan mun na def lu nekk alamin hukumi information d'information bu gouvernement bi nekk ci Gaza te Ismail Haniyeh jiite ko ña ngay wax ni li am dëgg-dëgg ci penku Rafah ma ngay junj li ñuy tuddee kaarisatu insania catastrophe humanitaire musiba mbàbb kumba goo xam ne nit dina ko gis ci boppam dëgg-dëgg mu ne ëmbul na mboolem province yi maanaam mboolem wàll yi fa nekk mu mel ni ki nga xamante ni li ci jiitu sax moom mooy ñi ñuy tuddee yahut yi ñoom nee nañu ndimbal gi daan dugg dañ koy daal di dakkal maanaam danañ tëj bunti yi nga xam ne fa la ndimbal bi mën a jaare àgg ci doomu aadama yi ànd ak loolu ñi nga xam ne ñooy jihaatkat yi ñoom ña ngay delloo liñ leen di sànni te malgré faaluwuñu bedd gi lañu bari bedd ña ngay ña ngay lépp lu ñu man mu mel ne kon yëngatu bu méttee métti la moo tax nga xam ne mooy kataayibul mujaahiduuna démb ñoom ak ñeneen gis nañu yëngu-yëngu yu ñu def yu bare bari yoo xamante ni yëngu-yëngu yu tar la ci xeex bi nga xam ne ñu koy xeex ak yahuud yi waaye gis nañu yahuud yi ba léegi ña ngay yëngal ak a bombal di sànni ci béréb boobu ñu am xattatu abu jaraad nga xam ne par place soo xam ne ay gaz kese la def ñoom ñu ngi jéem a diir foofu pour dóor fa seeni bal pour man ko exploser kon ci jamono bi may waxee yow nii Rafah ma nga am njaal beenu gu tàng tàng ci diggante yahut yi ak jullit ba bay Baye Mbaara waxoon na ko yahut du deltu ginnaaw eh, lépp pexe la boo ko jekkoo mu pexe bu la jekkoo wan la ko kon jamono bi may waxee yow nii xeex ba mën na nekk loo xam ne xeex bu taratar lay doon ñi yor wàllu administration bi ci mouvement tey ki wax ci ñoom mooy Razarashaq nee na Israël naka jekk waxoon na ne dëgguwul ci li ne day wut jàmm li mu ne day jëfandikoo ay waxtaan loolu daf ko muuree rek ngir mën a song fi nga xam ne moom mooy Rafah Netanyahu day jéem lépp lépp lépp pour mën a seet naka lay fexe rek pour teg nit ñi seen bët maanaam takk seen bët ñu naan dañuy négocier ngir ngir mu ngir mu bañ nekk ngir seet naka la ñuy nit ñi di yeddee naan waa Hamas ñoo bañ jàmm te waa Hamas xamoon nañu loolu kon mbir mi li mu tekki ba tekki mooy wax ci kaw dugal ci suuf la loolu tamit yëpp moom moo nekk jikkoy l'attaquant mbokkee xarit yi daanaka li gën a fës ci xibaar yi kon moom mooy loolu diggante rey ak reyante kon daal xeex bi rafaax la xam naa dañuy dellu si ci ay pour mën a mottal li nga xam ne moom mooy li xew ndax xeex bi moom foo ñu topp ko nekkatul loo xamante ni dañ koy bàyyi mu jàll noonu te dafay am euh, nekkul xibaar boo xam ne de jour en jour la mais di am heure par heure xam naa ku mel ni Hamza du ñàkk aussi tamit moom bu ñëwee ne ci fournir information docteur Yahya aussi ñoom ñi nga xam ne daanañu jàpp ci fournir information ñu topp xeexu rafaax bi pour génnee information yi ci saa yu ñu amee jot pour andi ko ñu mën ko commentaire ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yemale foofu xibaar yi di wax salaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu ba suba jàmm